calcul yi ñu doon ba taux bi ñu ngi cinquante virgule cinquante maanaam ñaari candidat yoo jël kenn moom moo ci am bac ñi nga xam ne ñoo am bac ñu ngi nekk soixante dix huit mille deux cent quarante six candidats ñaareel bi mooy ñooñu nga xam ne ñoo jàll ci bac bi boo ko xoolee bu baax ci ñetti at yi nga xam ne dañ ko ci lañ jógee résultat yi dafay mel ni kuy xaw a wàññeeku tuuti beneen bi mooy li ñuy woowee bac technique bac technique ñooñu ci ñu gën a baax résultat ci bagu Sénégal bi ci lañ bokk loolu tam dafay wane ne war nañu góorgóorlu fexe suñu xale yi di jàng nekk ay technicien supérieur ah, ci résultat bac yi dafa bari ay ay ay série foofu ñuy wax série tertiaire foofu la résultats yi gën a baaxee beneen bi ci topp mooy ñi ñuy def ba dafay am ñetti catégorie ñetti pàcc ñoo xam ne ci école publique la ñuy jànge mooy école état bi am ñoo xam ne ci école privée la ñuy jànge ñu jàpp ne école publique yi ba léegi fi ñuy wax ni Sénégal en 2024 ñoom ñuy jiitu toujours ci résultat fac école privée yi door ci topp bi ci topp mooy série yi xam ngeen ni fukki série ak juróom-ñett moo fi am série bi nga xam ne moo ci gën a baax ay résultat mooy série l bi nga xam ne moom la résultat bi gën a ñàkk baax mooy série LAR beneen bi ci topp mooy Sénégal dañu am bagu franco-arabe maanaam doomu daara yi dañuy gën a dugg ci école yi di ñëw di def bac franco-arabe gis nañ na ñoom seen résultat ren dafa baax lool surtout ñi nga xam ne dañ ciy def affaire scientifique mooy ñu di def ay mag mag ay SVT ak yu mel booy xool nag ren ci bac bi académie Dakar moom mooy premier moom mooy jiitu ci fukki académie ak juróom-benn yooyu ñu teg ci euh, Matam teg ci Tëngéej académie yi nga xam ne ñoom ñoo mujjee mooy Kaffrine mooy Kédougou mooy Kolda waaye nag bu dee xam ne da nga jël rek li ñuy woowee région Sénégal yooyu région yooyu la ñeent mooy Dakar Kaffrine fukki région ak ñeent yooyu région bi nga xam ne moo ci gën a baax ay résultats bac mooy région de Matam moo jël premier bac ci ren euh, ren au Sénégal région de euh, Dakar euh, topp ci région de Diourbel ci région yi nga xam ne ñoom ñoo mujj mooy Kaffrine Kédougou ak Kolda bi ci topp mooy bu ñu xoolee Sénégal dañuy def bac depuis ba ñu amee indépendance muy juróom benn fukki ak ñeent ci ren. dañuy gis ne résultat yu baax yi ñu amoon ba ñuy doon jël indépendance mooy entre 1960 ak 1969 ba léegi mënuñu amaat résultat yooyu affaire yi day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc. donc loolu dafa wane ne war nañ mën a toog ñu réfléchir est-ce que suñu bac bi ni ñu koy defee depuis 1960 ci indépendance noonu lañ ko war a continuer di ko di ko defee. ñi nga xam ne ñoo toll ci dem université mooy ñi am entre fukki at ak juróom-benn ak ñaar fukki at ak juróom-benn. loolu boo ko xoolee entre ñi am fukki at ak juróom-benn ak ñaar fukki at ak juróom-benn Sénégal boo leen jëlee fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk université xam ngeen ne loolu lim bu ndaw la maanaam tey boo tegoon fii fukki Sénégalais yoo xam ne ay jeunes lañ toll nañ ci jàng dem université ñi ciy dem université bu matee ñaar ci lañ yem na ci juróom-ñett yoo xam ne ñoom demuñu euh, université euh, bi ci topp mooy dañu xool nag élèves yi di part bu établissement yeeg yooyu élèves yi la élèves yi nga xam ne am nañ bac yëpp soixante-dix-huit mille deux cent quarante-six xam ngeen ne bari ñu xool kan ñan ñoo ci raw ñan ñoo ci ëpp moyen maanaam ñan ñooy pay ñu def classement bi génn ci fukk ñi nga xam ne ñoom ñoo raw fukk ñooñu nag ki nga xam ne moom moo ci raw am moyen dix-sept virgule quatre-vingt-cinq moom moo tudd Lauriane Ingrid Senghor bu lycée d'excellence de Diourbel ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci des bokk ci biir élève Sénégal bu bac en tout cas ñooñu ñu ngi ci document bi nga xam jox nañu leen ko di ngeen ko Euh, exploité ci lycée yi foofu dañu def trois classements classement bu njëkk bi mooy dañu xool rek ban lycée ban école moo ëppalee ñu fa am bac rek ëppale nag ñu am bac tekkul ne yow yaa yaay premier voilà foofu par exemple lycée Limamoulaye moom moo ëppalee ay élèves yoo xam ni euh, dañu am bac rek beneen classement bi ci topp dañu ne mais bu ñu xoolee lycée yi y en a mille deux cent dix ñoo xam ne ñoom ñoo présenté ay candidats rek ngeen loolu bari ñu ne mais ñooñu ñëpp ñan gën a baax ay résultat ñu ne dañuy def ñaari classement classement bu bi daf ci yoo xam ne école yu ndaw la maanaam bariwuñu ay parce que seen candidat matul cent ñu ne ñooñu nañ leen daj parce que boo leen boolee ñi nga xam ne dañu bari ay candidat peut-être que classement bi boo leen jëlee am na ci juróom-ñeenti ñoo xam ne ñoom ñëpp peut-être sax ëpp na ko mais ñun jël nañ ci juróom-ñeenti ñoo xam ne ñoom ñëpp 100 pour cent la ñu am maanaam ñoom ñëpp seen candidat yëpp ñoom ñoo am par Fini terminé, il y a 1210 écoles qui ont présenté des candidats Sénégal pour les publics et privés. Il y a 20 écoles qui ont eu le résultat en 2024. Il y a une école eu 1000 cadeaux. école qui 1000 cadeaux 100% présenté de plus de 100 candidats qui ont eu les meilleurs résultats au bac au Sénégal cette année. Il y a une information qui a eu le résultat en Il y a une yooyu nga xam ne ñoom ñoo raw Sénégal am na ci juróom-benn école yoo xam ne c'est les catholiques c'est les catholiques euh, les privés par exemple deuxième école bi nga xam ne mooy ñëw après euh, Mikado mooy école Notre-Dame troisième école bi mooy Notre-Dame du Liban. ci fukki école yooyu nga xam ne ñoom ñoo raw ci bac Sénégal benn école rek moo ci nekk école publique maanaam benn école rek moo ci nekk école boo xam ne école état la te élèves yi fay dem fay école boobu nag le lycée d'Ignaki de Bignona donc ñoom ñooy septième du classement national mais puisque ñoom avons ñoo école publique dañuy jàpp ne la meilleure école publique du Sénégal 2024 ci résultat